أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بالهدى إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا أحمد التياني وعن سائر مقدمي وخلفائه السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi nekkoon ci téere bu barkeel bi ñuy wax alfiya jawharatul gharra jawharatul gharra fi siirati abil abbas saaxibil yadil bayda radiyallahu anhu nekkoon ci chapitre deux muy ñaareelu bunt bi di wax xam-xamu sëriñ bi mu koy tëj nag ne yow mi nga xam ne mokkal gi Cheikh na Ahmad Tijaani mokkal jaaxal na la xanaa da nga jàng ne moom dafa doon yonent bi te yonent bi la yàlla waxoon ne sa nuqri'uka falaa sa illaa ma sha allah yonent bi jàngul dugul benn daara te daawul fàtte nga xam ne yàlla moom moo koy jàngal lu ko soob moo tax mu ne wiraasatun seen tiyaani lii mu xam wax dëgg yàlla bu mu la wa zaaka min wiraasatin ilahiya mustafawiya mustafawi li jaddihi al-adnaani qaala al-ali lahu sanuqri'uka falaa tansaa fa sirru ash-shaykhi fi dhaa ash-shaani sariicatu al-badiihati fi cilmihi wa xifdihi wa naqdihi milsaani wa waasicu al-caqli bidunyaa wash-shu'uun yumayyizu al-ashyaa'a bil-jawlaani siyaasatan wal-iqtisaada bil-himam wan-nadma wal-mucaamalaat wal-mucaamalaat al-xaani laa yuksiru alkalaama amma yulhihi an alilahi wa huwa zu sakraani kalaamuhu dikru tilaawatu alqur'aan fi aaxiri alcumri maca alfurqaani amarahu annabiyu an yulaazima alqur'aana lalkutba kalcaqlaani lalkutuba kalcaqlaani lahu min alkashfi ziyaadatan cala maa mannahu allahu min alitqaani yumayyizu algassa min assamiini qubayla ibbaanihi bil irsa bil arsaani kaannahu wulida wal ilmu maca lillahi darru ummihi lxissaani fasaara jullu lculama min bacdi daa yushiiruhu lasaabicu larkaani ilayhimu julluhumu bil ilayhi julluhum biwirdihi axad xayaatahu wa bacdahu yaqdaani fi talabi lculuuma fi lsaxra wa fi lfaasa fadaa bidaa بذاك شهدوا يا حاني وكل ذا وكل ذا يفهم العاقل منه هو بالإشارات العلي اليقظان بأن مستقبل هذا السيد يكون نفع الكل للأقران الإملاء هو الممد للعلماء سرا وجهرا دون ما نكران faydul ulu faydal ulumi rasmi warraqmi kada sirri fa minhu jumlatal jumlatat tijaani alayhi afdalu rida min azali lil abadil abadiya tijaani mu wax ne fa tabaarakallahu Seydi Ahmed Tijaani mokkal gi mu mokkal ak xam-xamam bu mu lay yem ndax qaala al ali yonen yàlla moo wax ne Euh, lahu sa nuqriuka fala tansa fa sirru cheikh kon sirru cheikh na tiyaani ci mokalam bul foog ne dafa naan lem wala nga foog ne dafa naan kiis déedéet fii da ci mbir moomu la aaya boobu euh, wax nañ ne sëriñ abbas sàlla yàlla mu ngi ko fatxo ci aaya bi ci suratul maarij yu bassaruunahum bi mu agsee foofu yu wuna bassaruunahum yàlla ci la ko fatxu fatxul akbar boobu am nga xale buy jàng alquran ba toll ci yu bassarunahum yu mu mën fatxu ci alquran nga xam ne kooku yàlla teel naa sonne ay mbiram cheikh sariatul badihati ku gaaw compréhension la fi ilmihi ci xam-xam wa xifdihi ak ci mokkalam wa naqdihi ak critiqueam milsaani ci waxin moom dafa gaaw ci ndax am na ñoo xam ne bala ñoo comprendre dara nga wax leen ko waxaat leen ko waxaat leen ko balañ laa tontu itam dinañ xalaat xalaataat Cheikh Tidiane boo koy laaj bu sa kàddu di daanu rek tontum di ñëw ba di xëtan lu naturel lay doon ci moom boo koy seetlu di nga gis ne wawaasiul aqli ku yaatu xel la xel mu rëy la yor bi duniyaa ci mbiru même mbiri àdduna yi boo ñëwee wax ko projet mu déglu la ba àggal mën na la ci orienté ba yow da ngay waru wa suun ak mbiri àdduna yëpp mel ni kër woy liggéey wala oto boo am wala waruwaay wala soxna sooy jël moom daal boo ko tegalee programme bu ci joxee ay orientation dangay ngay waaru ci yàlla loolu gis nga moom la turandoom bii niru Sayid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum xam ne ni xamee àdduna danga naan ñi àdduna sax xanaa xamewuñu ko noonu moom cheikh yu mayizul ashiyaa dafa daan le mbir yibil bil jawlaani ci ci wër maanaam moom lu nekk daf koy teg fa mu war a nekk euh, loolu yàlla moo koy may ñëpp am na ñoo xam mën nañoo jàng ba jeexal téere yu bari waaye duñu ràññee duñu xàmmee seen tiyan nag dafa xàmmee woon ba lu ne day xam priorité moo xam siyaasatan ci wàllu politique la boo ñëwee ci moom bu la joxe ay orientation ci politique da ngay foog ne doyen la ci euh, ci politique wala iqtisaada ci wàllu maanaam yaxantu te muy économique Sidi Ahmed Tiyaani boo ñëwee laaj ko ay idée ci politique maanaam ci économique da ngay foog ne économiste la bil himam ngir yitte rek wan nazma ak organisation lépp loo bëgg a def nga laaj ko moom mode d'organisation bi ñu ko war a defee moo xam société la moo xam association la moo xam daayira la wala xadra moom bu joxe joxee mode d'organisation da ngay waaru ci yàlla da foog na lool rek la def formation wal muamalatil xaani ak mboolem ce qu'on appelle les transactions lépp loo xam ne ay nit daal dañ koy séq di ko doxal moo xam ministère la wala présidence wala tabarakallahu mairie wala conseil wala mm, consulat wala tabarakallahu lu mu mën a doon daal lu ay nit bokk ñu war ko administrer Cheikh na Tijaan ni mu ko maîtriser yéemi na doy na ci rek moom moo administrer tariqam au niveau mondial ci baatin ak ci zahir tariqa bi dara arrêté wul plus de deux siècles de cela nga xam ne loolu may la waaye ak intellectualisme bi ne ci moom yëpp xam-xam bu bari bi li yéemoon nit ñi mooy bariwul nag lu muy wax laayik serul kalaama bariwul woon ay wax moom te loolu euh, waxoon nañ ko ci gannaaw ndax nit bu saxel xel ubbeekoo sa xel yaatoo sa sa wax day néew laayik serul kalaama moo tax daawul baril wax amma yulhihi ci lépp loo xam ne dina ko soxlaal rek anil ilahi ci yàlla cheikh benn wax la amoon mooy yor kursam di tudd yàlla te ndànk la koy wax ba moom mu yem ci moom waxoote moom su sakaraani dafa dafa dafa mandi woon sax ci bëgg tur yàlla cheikh presque vingt quatre heures sur vingt quatre yi doo gis waxtu mu yorul kurus moom tout le temps day yor course bokkul ak ñi am kersa ci yor course am na ñoo xam ne dañuy am kersa sax ci buñ gisee ay nit yor kurus euh, da ngay dégg naan da ngay bàyyi ba tëju soog a yor sa kurus ne seen tiyaan yi chaque jour tout instant boo ñëwee yaa ngi fekk mu yor kurusam ci loxom kalaamuhu bu dee dina wax daal waxam mooy a tudd yàlla maanaam waxam lenn la mooy tudd yàlla mais waxam mooy jàng alquran mooy tilaawatul quraan yi fi axiril umri maal furqaan mu mel ni nag dafay tënk ña la cheikh la mokkal na téere yi muxtasaraat la wax yëpp mokkal na ko mokkal na fiqh mokkal na xadis mokkal na mokal na waaye nag mujj dundam dafa trier waat <clears throat> yonent bi daf ne ko téere yu bari yi nga yor jël ko nga yóbbu ko jàkka ja te yow sa néeg bii nga def ko néegu jaamu yàlla ndax néegu téere ak néegu jaamu yàlla du benn bari na ku bari téere te fekk na taloo naafilal yàlla benn rakk donte imam Shafii dafa wax ne toog di jàng di jàngale moo gën fuuf maanaam dëkkee naafila waaye cheikh nag mu juddu ndam yonent bi moo ko ne génnal téere yi nga yóbbu ko ndax yii yow ñi bind téere yëpp yaa leen raw yow waxul dëgg ah ñii bind téere yëpp yow cheikh yaa raw kon nag génnal téere yi nga yóbbu ko ca jàkk ja wala ci ñaka soxlo te yow nga sax ci ñaar muy alquran de koy jàng te dabburan ak lenn ci kutubu hadis ak xikam ata ya lool rek la mujj dese ci mujj dundam ma ne xawma ma lan la war a deseeti lu lool bépp téere bu nit taalif daal moom cheikh ci barkem yow sax nga xamee loolu ba mën koo taalif kon xaw ma lu mu lay doyati moo tax mu ne amarahu nabi yonent bi moo ko digal an yu laasimal quraana mu dëkkee alquran di ko jàng ci mujj dundam waaye lal kutuba déet téere yi kel aklani comme un intellectuel xam nga intellectuel boo gis ay téereem la yaakaar ah ay téereem rek la yaakaar bu téere ya noppee mu noppi waaye maftuxun alayhi téere yi lay tëj di wax loo xam ne nekkul ci téere te ñooñu am fatxu yëpp Seydi Ahmad Tijaani mooy seen sëriñ am na sax gannaaw téere yi mu mokkal nag maanaam shahadatul ulama lahu borom xam-xam yi liñ ko seedeel ci euh, xam-xam ak mokkal euh, teewul nag moom amaat na beneen xam-xam boo xam ne nekkul ca daara ja ndax euh, alhammu attijaani moo ko dalal alquran après mu commencé di jàng di jàng mais gannaaw bi mu jàngee ba mokkal téere yi dégg nañ ci ne kon ndeke moo raw borom téere yi hmm? waaye nag ndekete amaat na beneen téere bu muy jànge te mooy ma mahfuz nga xam ne moom lu ko jaaxal bu siggee xool lawhul mahfuz yàlla tegal ko fa bu doon tablet rek bu taxaw ci kanamam xanaa boobu moom defe weesu na téere yi mu mokkaloon moo tax mu ne lahu am na minal kashfi ci xeetu kashfu nag dévoilement ziyaadatan lu yokku nag ala ma mannahu llahu ci li ko yàlla mayoon sax d'ailleurs minal ilqaani ci mokkal ak xereñe maanaam li ko yàlla mayoon ci xel mu rafet ak xel mu neex li muy bari bari ba mu mokkal téere yëpp mokkal nas yëpp teewul nag bu ko yàlla bëggee xamal leneen utal na ko beneen bunt muy kashfu sarih boo xam ne day toog di gis lawxul mahfuz di fa jàng loo xam ne téere sax jotuñu ko fay wàcc kii kon kan moo koy dab nag ko la ci téere yi ba pare nga nga ne bu ma góorgóorloo sax xëy na dab ko mu faf nag di jànge feneen foo xam ne yow yeggoo fa looloo tax mu xamme mu xàmmee radiallahu an moo tax mu ne yu mayisu dafa daan xàmmee alxass mine samini mooy pur ak royal du benn dañuy wax ne pur ak royal du benn hmm? euh, loo xam ne nii dañ koo xooj kooj loo xam ne dañ koo kooj ak loo xam ne original la defe naa du benn cheikh nag dafa xàmmee original ak lu ñu xooj mu mel ni bu fekkoon ndawal la ndawal bu duuf moo fi nekk ak ndawal boo xam ne ay abaa rek la ak ay boutique ak yu kenn xamul loolu ñaar du benn moom Cheikh tiyan Tijaan nag ndawal bu duuf ba la xam moom la am ku bay le ibbaani yi laata muy nekk mag bi arsaani ci dëgër maanaam moom bi mu nekkee xale la xàmmee moom ka annahu dafa mel ni daal moom boo xoolee atam ak li mu xamoon dafa mel ni wulida dafa juddu wala ilmu fekk li ñuy tuddee xam-xam maahu dafa ànd ak moom judduwaale maanaam cheikh ñëwul ba fii ci àdduna jàng fi pour am xam-xam ndax wax dëgg yàlla koo xam ne nee nañ la laata ngay fukki at ak juróom xamatuñu loo war a jàng na xam-xam bu bari te xam-xam nga mën a toog ay at di ko jàng te doo ko mokkal yow daal nga mën ko fi mokkale ni dañ naan kon da ko judduwaale moom la olof di wax ne nit nangam da ko judduwaale nit nag li nga judduwaale du neex a roy ci yow day naturel moo tax ne ka annaw dafa mel ni moom wulida dafa juddu wal ilmu fekk xam-xam maa dafa ànd ak moom lillahi maa yéem nag waaw cheikh mu mag mi kan moo ñu mën a may loolu mu ne xanaa yaayam ju baax jooju ndax yaayam ji bu baaxul woon mel ni mu war a mel du mën a jur ku tedd nii muy Seydi Ahmada Tijaan mu ne mu ne lillahi yéem naa yàlla darru ummihi euh, baaxuk yaayam alxasaani mi nga xam ne dafa sangewu comme niñ ko jàngale woon ci gannaaw nga xam ne kenn du moom radiyallahu anha muy sittuna lalla Aïcha ma an jabat xaw xawdun min alxawaani fi kulli e, e, dahrin marra min zamani ka misli ummi cheikhina tijaani aïchata alxasanati e, lool la moom la ci tijaan ibnu baaba alalawi waxoon muy lillahi darru ummihi ma axsana fa moo tax mujj na jullul ulama li ëpp sax ci borom xam-xam yi vraiment kuy dégg tuuru Cheikh na Tijaan yi te xam-xam yittel la aki sàkku ko dañuy commencé di dégg turam ndax université boo dem ñu ne haada min ra'yi Tijaan yi lii gis-gisu Ahmed Tijaan yi la léegi étudiants yëpp di dégg ay turam ba yàgg ñu koy bind ci ay téere étudiant nak li mu soxla rek mooy borom xam-xam fan la koy gisee yàlla dogal ñu commencé di ko wër mais ku ku ko wër itam ba gis Cheikh na Tijaan yi gën a jommi dama ne saara mu jëne julul ulama min baadi za gannaaw xam-xam bu bari bii di tuuru yusiruhu ñu mujje di maanaam mu mujje di joxoñ al asaabiu baaraam yi al arkaani yi ponk ñu mujje di joxoñ Cheikh na Tijaan yi radiyallahu même bu daje amee sax ñu naan haza Tijaan yi kële Tijaan yi mi nga daan dégg haza Tijaan yi haza Euh, euh, waa saxra waa saxra baa ngi nii ñu ko léegi bu ko defee kenn ne ah, moom la nga daw nuyu ko fon loxoom mu jegi léegi nga commencé di ko laaj ay masala yoo xam ne yow déggoon nga ko yow déggoon nga xam-xamam déggoon nga cëram nga commencé di ko laaj masala ndekete loo déggoon rek boo gisee Cheikh na Tijaan yi muy jàngale xam-xam yow da ngay fàtte mu ngi mel ni jamono jii li xew nga toog di jàngale ñuy déglu say ojo fu nekk ci àdduna bi hmm? léegi ko nit ki déglu la ba naw la ba pare gis la nag bés bu la gisee danaan ma man ndeke li ma daan dégg sax ak kii du benn ah ndeke man li ma daan dégg ak kii maanaam jëmma ji moo raw junni yoon sax la ma la ma foogoon noonu la Seydi Ahmed Tidiane yi meloon moo tax boo daan dégg turam ba gis ko dangaan noo man man ndekete man man man man xaw ma dara moo tax mu ne ñëpp mujj di ko juñ eh, joxoñ ay baaraam ilayhi moo tax julluhum ñu ci bari dañoo mujj jommi eh, axas dafa mujj jël bi wirdi yi sëriñ yu bari da ngay dafa bari ñoo xam ne ay sëriñ lañ dañ daan diingat Cheikh na Tiyaan yi di ko diingat waaye bis boo toogeek moom muy wax di wax di wax ba yow danga doon xam ndax kii day jàngale wala day tuuru dangay ngay mujjee boo paree nekk may ma sa werd xam nga ki nga jël werdam doo ko diingatati de hmm? xayaatahu diiru jamonom bari na ku noonu woon cheikh ci borom xam-xam yi wala ku gaan critiqué da nga boo toogeek moom dangay jommi ba jël weertam wa baadahu ak gannaaw gi yaqdaani ñu yeew baadahu mooy ñi nga xam ne nii ca daara ja nekkoon nekkuñu woon sax xëy na ay mag ay daan dégg turu Cheikh na Tiyaani bi mu faatoo nag ñu commencé gën a dégg ay mbiram dégg ngëneelu tariqam ñoom ñëpp wëri ji ay muqaddam jël ko te loolu ba tey am na man bu ma gisee nit muy critiquer tariqa bi ne ci xam-xam la ko teg damay ree te xam ne moom balaa yàgg mu dem jëli werd moom ñoon gis nañ ci ñun gis nañ ci yu baree bari euh, moy ñoo xam ne ni dañ ne woon dañuy dinga tarixa bi waaye dañ mujjee ñoom ñoo mujjee di liggéeyal tarixa bi ndax cheikh neexu la dingat xanaa kay ku rek moo tax mu ne talabil uluma sàkku xam-xamam fi saxra ci saxra wa fi fasa bidaaka borom xam-xam yi shahidu lool lañ seede yaa xaani yow mi bëgg cheikh waaw léegi nag diplôme yu tol nii attestation yu tol nii seede yu tol nii te borom xam-xam yi wax ko ni ma waxee woon ne mbërum làmb bi ku mu seedal sa am doole war nañ ko mën a gëm waaw mbëru làmb xam-xam yi ñoom ñoo seedal Cheikh na Tiyaani wax yu sell yii hmm? wax dëgg yàlla yow mi xamul dara war ngaa mën a nangu nag ne Cheikh Matian Chérif moo la raw yow nga gannaaw ñi jàng ñoo seede lii ne mosu gis ku mel ni ñoom mel ni moom te neex naa gëm ndax téere yi mu fi bàyyi fa tabaarakallaahu gisaatuñu ko mu ak xam-xam yi mu fi bàyyi ku defaat lu mel noonu te muy jawaat ma ani ak lu ni nuru al irshadat al rabbaniya moo tax mu ne wa kullu yii yëpp nag ma la wax depuis ci fas bi yufahimu ki lay comprendre al aqila ku xelu dafay comprendre day fair comprendre euh, loo ku xellu minhu ci cheikh bil isharati al ali ci junjam yu kawe yi al yaqwaani yu yeew yi lool te rafet boo jàngee jawaar maani vraiment junje fa cheikh na tiyaani jàngale ay xam-xam yu kawe di nga xam ne nag wax dëgg yàlla ku mel ni kii mosoo gis démb rek am na ku may wax di yéem jawaahirul maani ne moom vraiment gis ne téere bu ne waaye téere bu mel noonu téere bu ne waaye téere bu mel noonu mosu ko dégg kon yow boo jàngee jawaahirul maani rek di nga war a mën a xam yii ma la doon junj ndax jawaahirul maani bu fekkee benn togg bu ñu yàq la kon war ngaa xam ne cin la ko togg tabaarakallahu baar na li nga ci xame mooy bi anna mustaqbalu léegi nag cheikh bu fekkee ci at yooyu moom jeune la woon étudiant la moo mel nii xam li yegg fi waaw kii kon ci kanam lu muy doon hmm? moo tax di nga xam yow boo comprendre ne bi anna mustaqbala hada sayidu ne dëgg-dëgg daal avenir u sang bi yakunu dina nekk nafal kulli jariñ ñëpp lil aqraani ci génération yi koo xam ne xam nga lépp est ce que mënoo jariñ ñëpp hmm? waaye da ngay bëgg gis ku bëgg a jariñ ñëpp te moom xamul ka xamul dara kooku defe naa ci xuloo ak xeex rek lay nekk ak dingat yàlla ci yàlla musal waaw lan moo tax mu mën a jariñ ñëpp parce que dafa xam lépp lu tax mu war a xam lépp mu ne non képp ku war a amee xam-xam ba àddunay tukki lumière bi ngay jàngee xam-xam Sidi Ahmed Tidiane moo la koy tëbb ko kay kooku toog fi naan moo raw borom xam-xam yi loolu warul waroo ko wax da nga war a wax ne moo jàngal borom xam-xam yi moo tax mu ne lim laa pourquoi pas sax wowal mumit du te moom mooy tëbb euh, maanaam lil ulama yi ci borom xam-xam yi sirran ci lu feeñ wa jëhran ak lu nëbbu duuna ma nukraani te loolu kenn du ko wedde hmm? waa koo xam ne mooy tëbb borom xam-xam yi bañ am xam kooku toog fii naan da ngay wane ne dafa am xam-xam xam nga loolu xeet la ci mën a yaatal wax rek mu ne Cheikh Tiyaani di nga xam ne moom mooy tëbb borom xam-xam yi faydal ulumi faydub xam-xam yi ar rasmi moo xam yi ñuy bind la war raqmi ak moo xam yi nga xam ne yu ñuy def ci këyit la mooy yu ñuy numéroté kaza sirri ak yu nëbbu fa min hu daal ci gàttal ci cheikh jumlatu tijaan yi mboolem couronne yi ñuy takkal borom xam-xam yi di leen naw Cheikh na Tiyaani moo leen koy takkal léeg-léeg nga dégg ko de euh, kaala nañ ko jàng na ba xaafis sëriñam kaala jox na ko amaama waaw secret bi rofu ci yow ba nga mën a xam kaar ba àgg foofu du dara lu leeru Seydi Ahmed Tiyaani di nga weddi lool ne ah loolu mënul nekk parce que yàlla mooy jàngale waaw yàlla mooy jàngale waaye njàng moom leer rek la leer googu nag dafa am wasita muy ci day jaar ci yonent bi jaar ci Seydi Ahmad Tijaani moo tax benn arif billah dafa toog tabarakallahu yàlla nattoo ko muy jaay xashish wax nitu yàlla yi dañuy def tanakkur muy jaay bu doon tey ji li ñuy wax euh, maanaam maanaam pon pun pon ak cigarette yu mel noonu euh, waaye ndekete moom dafa jot ndigal ci xayb ñu wax ko ne que na nga jaay pon mais pon bi sirru bi ci nekk mooy daf ciy def benn baatin boo xam ne boo ko jëndee boo ko tuxee benn yoon fa ngay jaare bàyyi tux xam nga ko waroon na ñëw Sénégal de moom baatin bi loolu la yow yow daal jënd ko rek ba tux boo ko tuxee ba mu jeex keroog ngay gëj a tux moom ñu xëy bu sant ko loolu mu koy def benn borom xam-xam romb fa gis nit ñi comme nit ñi xam nañ ne ku ko tux doo tuxati nit ñi di ko rang coow li bari foofu lool sax benn qaadi yi boroom xam-xam romb fa ne waa lu xew fii ñu ne ko nitu yàlla bu mag boo nekk fii di jaay pon mu ne li may waxatee ngi ni nitu yàlla na la mën a jaay pon yéen daal yéen a yabaate commencé bëgg saaga wax yu wax yu tegginuwul yu tegginuwul ndax faqir la euh, ñëw ba ci sëriñ bi euh, ne ko yow ah nii ngeen di def naan ay wëli yu ngeen wax a wax a wax ba yàgg ne ko yow doo waliyu rek nga ah loolu nag mu wax ko mu ne ko ah, kon nag baax na seetlu bu baax de ndax di nga ma soxlawaat fan yi te doo ma gis rek sëriñ bi bif loxoom moom sëriñ bi maanaam sëriñ bi moo bif loxo boppam ndekete bi mu bifee loxo boppam rek rëkki na xaadi bi muy juge bi waa ji dem war te fekk dafa doon jëm directement ci école am Euh, pour euh, euh, jàngale ji te ngoon gi dafay dem ci maxkama ba dem atte ji waaye ba mu demee xamul lu muy jàngale ndax fatixa sax mokkalatu ko ak at yi mu def ci daara yëpp dem na itam gis ne atte yi ñu ngi ñëw maanaam ahkaam maanaam daarul qada ñu ngi koy indil ay atte mais moom xamatul sax lan la ñuy wax atte nag boo ko comprendre wul nan nga koy atte ba mu demee ba ba yàgg nag mu ne ah taalibe yi mu naa ah, mu ne man de la ma xamoon xamatuma ko de xamatuma dara am ku ne ah, ñun de ragaloon nañ ko ci yow parce que nitu yàlla bi nga toroxal ci marché bi ragaloon nañ ne cërëm <tsk> dana la gaañde mu ne léegi nu ñuy def ñu ne dem leen euh, nañ nañ dellu ci moom ñaanal la ko njëkk ñu dellu ci góor ga euh, naka la ko gis rek ree ne ko neewoon naa la dig ma wëraat neewoon naa la dig ma wëraat mu ñëw ne ko man kay maa ngi jégalu dama ko comprendre wul nii rek mu ne ko waaw demal jënd ji mburu euh, def ci nga wut yàpp togg ko ba mu baax euh, soos bu baax nga def ko ay sandwich après nga di ko jox fuqaraa yi ak masaakin yi euh, sëriñ bi dem jënd ji loolu borom wërsëg la defar togg ko ci cin lu mag def ko ci ay mburu nekk nag toogal ci sama place bi te sëriñ bi kat ku ñëpp xam la foofu maanaam qaadi bi ku ñëpp xam la mu ne ko da ngay toog sama palace bi ku ñëw rek bu ma ko jaayee benn benn mégo benn benn paquetu pon nga jox ko benn mburu yow xam nga léegi kuy ñibbi dina xam ne xaadi bi mu nga toog foofu <laughs> xaadi bi xaadi bi doon wax lii dafa xaram moo mu a toog foofu moom ci place ba sëriñ bi ku mu jox benn paketu pon rek eh, kooku jox ko benn sandwich mu dem noonu lay def di ko def di ko def ba mburu yëpp jeex mu nekk alhamdulilah rabbi dellul nag sa kër am na fa benn ganaar guy sab mu ne mu ne ko foofu laa denc sa xam-xam man soxlaw ma sa xam-xam ndax yoo xamo dara ndax xam-xam boo xam ne xaj na ci yóoru yóoru ganaar wax dëgg yàlla war ngaa xam ne xam-xam boobu jarul a xeebaate nga xam-xam boobu bariwul sëriñ bi nekk lan mu nekk sa ganaar gi nekk sa kër gi lay sabal falaa def sa xam-xam boo demee da koy rendi nga togg ko lekk ko boo lekkee yëpp rek xam-xam bi dina dugaat ci yow waa dem jëli ji ganaar gi maa bu ganaar gi rëccoon dina am problème rendi ko tabaarakallahu defar ko ba mu baax tëju bokku kaa kenn lekk ganaar gi ba yëy bopp bi ci saa si rek la mu xamoon yëpp dellu si jóge na fa nag ba bom buy jàngaleeti côté boobu sax du fa jaar ci côté boobu sëriñ ba nekk du fa jaar nga xam ne nitu yàlla yi nu ne la ñuy def waa ma ne nitu yàlla bii bu ma nee rekki xam-xamu kooku waaw Seydi Ahmed Tidiane mi nga xam ne moo tëbb kooku xam-xam bi leeru xam-xam bi xam nga toog naan moo raw borom xam-xam yi xam nga loolu yow kenn xamul lan la moo tax mu ne moo leen jox faydal ulumi maanaam bëbbu xam-xam yi rasmi yi ñuy bind war raqmi yi ak yu ñuy numéroté kaza ak yu nëbb yi fa minhu daal ci gàttal jumlatal euh, tijaan yi mboolem couronne yi ñuy solal nit ci xam-xam mu ngi jóge ci leeru Seydi Ahmed Tidiane ci mayu yàlla alayhi yàlla nekk ci moom afdalu rida ngën ji ngërëm min azali jóge ci azal lil abadil abadi ba abadul abad yaa tijaani yow cheikhna ahmada tiyaani yàlla na yàlla fayal ñu ko hada huwa tawfiq min indillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu